contamination directe nak bo leen ko déggee moy kii dafa sëy sans protection bu fekkee dafa infecté yalla da fay dogal da fay nek li nga da fay walanté ci sen biir ku góor ki mën nako na ko jigen ku jigen mën nako mën ko wàll amna itim nak benen mode bi nga moy niñ koy walanté moy ci walu deret moy ñaari deret yu jaxaso ben deret bu infecté ak ben deret bi nga bu sain la bi xamanteni dara daluko sen seen deret bu échangeanté rek mën na nek li nga xamante itim luy mën indi hépatite la asalaamaaleykum wa rahmatullah waa sëriñ Baara ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar yi tey yéen a ngi ci jàmm naka jaboot yi ñëpp a ngi jaamu waa sa garab yi da moom am na solo trop trop trop vraiment bi ma koy commencé di jël ak léegi daal wax dëgg yàlla maa ngi sentir ne lu am solo la wax dëgg yàlla kontaan nañ ci yow trop sëñ Baara ñu ngi kontaan ci yow di la gën a bàyyee suñu bopp daal jërëjëf sëñ Baara. hépatite B nak nek na feebar bi nga xamni wax dëgg yàlla organisme bi di OMS wax na ni 30% population mondiale am nañ ko fi ci Sénégal sax da fee bari lool ba ay nit ñoo jël ñaar ñet ñu nek rek ñong koy jambat hépatite B nak virus la virus la bi nga xamni da fay dugg ci organisme doomu adama diko ko kon hépatite B bu ko nit amé rek na japp ni mom moy ndayu cancer ndax hépatite B bokku na ci luy jur cancer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 ma dem tollamtewaat ko muy deuxième fois fois damaa ñëw def analyse zéro lépp dañ lépp dañ set wecc médecin bi nga xam ne moom ma doon suivre muy hépatologue bi dafa ni ma mais comment ça s'est affaire bi sa koo jaaxal quoi ma ne ko nag euh, yow xam naa doo xam waaye man xam naa loolu nag ma ciy sant bu baax ndax ni nga tooge nii sëriñ bi jox la ay xéewal ay xam-xam ak yëf nga ciy jàppale jo mbokk mboolem jullit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 waaw maa ngi lay ñaanal nag yàlla na nga fi yàgg yàlla na la sëriñ bi guddal sa fan wéral sa cër yokk say xewal ba dootul yem fenn waaw sa xam-xam yàlla na dem ba siiw ci àdduna bépp ba ñëpp xam ni lii nga yor sëriñ Tuubaa la ko jox te jariñ jaam yi tax mu jox la ko. am na ci nga xamante ni nag c'est héréditaire seen ay maam wala seen wayjur bu góor wala seen wayjur bu jigéen da leen koy wàll ndax maladie la bi nga xamante ni c'est trop héréditaire day dugg ci famille bu na ci famille bu mel noonu nga gis ni sa ndey da ko yóbbu ko sa amoon ko mu yóbbu ko sa am ko mu yóbbu ko kon kon kooku kooku kooku jarul ngay toog ñu naan la ay trois mois ñëwal six mois ñëwal nga yeew benn jour ñu la dugg na cancer dootoo ko mën a faj kenn dootu mën a faj ku loo ko waxee dalay nax parce que dafa am taux bi nga xam te ne bu fa xasee ba egg cancer direct cirrhose du foie direct nit ku nekk na nga moytu bépp deret bu bokkul ci yow même bu dul mën na la wàll yeneen feebar ñu moytu lépp li nga xamante ni mooy mooy yàlla ndax lu ëpp foofu lay wàllante kon nag képp ki nga xamante ni am nga mbokk wala dëkkaale wala nit ki nga xamante ni yaa ngi koy dégg ci lu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 yaa nga am nga am nga hépatite B na nga ñëw ci moom dégg moom mu faj la te xam naa ni boo boo bii ci boppam xewal la bu ko kenn kenn kenn kenn kenn kenn kenn wuute sama jabar yi nii nag moom nii la ko daloon ak ba mu ko fajee yëg na ko xam na ko jox ko micro bi moom mu jëpp mu wax ci. asalaamaaleykum maa ngi leen di gërëm di leen sant maa ngi leen di gërëm di leen sant.